Coucou, hello mes gars, mes amis, c'est Rita Paradis Massay Balago Faramaren qui est là parmi nous. Yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne ah tey nag damay wax ci jéeg yi nga xamante ne ñooy nekk ci waañ yi di togg wala xale yi nga xamante ne sax ñooy nekk ci waañ bi di togg nee naa la boo nekkee jéeg da ngay jéem a civiliser jéem a set am sa ay torchon yu baax waaye am na ñoo xam ne seen catu sër yu forox yu tilim yu salta yi la ñuy jël di ko jàppee cin wala nga foree fee morso rek ñëw di ko jàppee cin wala nga koy fompee palaat am na ñoo xam ne bu ñëwee sa biir kër sa waañ la ñuy njëkk seet seetlu waañ ba bu tilimee duñ fa lekkee duñ fa sax yendu ba di fa lekkee yéen jëm leen a civilisé du ñëpp nag am na jéeg joo xam ne dañoo set waaye am na jéeg joo xam ne dañoo salte tilim forox dañuy jël seen catu sër yi di ko jàppee cin wala nga jël sa yére bu tilim wala sa musóor bu tilim di ko jàppee cin wala di ko pompé table yéen jéem leen a civilisé te jéem a set ah billaay am na jég joo xam ne dañoo salte forox tilim yéen jëm leen a civilisé ngir yàlla bàyyi seen catu sër yi ngeen di jël di ko jàppee cin wala seen musóor yu tilim yi ah jég da ngay civilisé bëgg lu set ku ñëw rek gis sa waañ ak sa environnement rek day am envie rek toog daal di lekk ba suur naan ba mandi jéem leen a civilisé tey ci loolu la doon wax I love you so much. Thank you.